waaleykum salaam wa sëriñ Mbacke Mouhamed Lo laa tudd. lu am solo la moom ndax euh, loolu dafa bokk ci euh, lan mooy rôlub sëriñ ndax xam nga lislaam day loo xamante ni ñi ñi jiite rawatina sëriñ si dañuy soxla ci ñoom ñaar benn bi mooy ñu sàmm diine ji bi ci des itam mooy ñu dundal àdduna ji sàmm diine ji mooy ñu xamal nit ñi. dëgg-dëgg lan la yàlla soxla ci ñoom ci seen digganteeg yàlla ak diggante nit ñi waaye itam euh, bi ci des nag mooy wàllum àdduna si mooy ñu xam nga ci àdduna lañ nekk te alaaxira bala moo rafet maanaam danañu yóbbaloo fii ci àdduna kon li nga xamante ni mooy tax ñu aar seen ngor mën a dox seen diine mu gën a rafet itam ñu xam ko bu baax a baax loolu nag dafa mel ne jataay yu mel nii euh, da koy mën a dëgëral ndax sëriñ bi dafay woo ay nit woo fi ay universitaire ci wàllum atte ak loi woo fi ñi nga xamante dañu jàng sharia ñuy waxtaane tomb yoo xamante ni day ñeel société bi lépp kon lu am solo loo xamante ni lu jar a bari la ndax euh, dana tax ñu gën a mën a daje ñu gën a mën a waxtaan dem réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk te ñoo bokk luñ ci bëgg ndax liñ bëgg mooy réew mi jëm ci kanam kon jataay bu am solo la jar di bàyyi euh, bari la moo tax ñu ngi koy rafet lu baax a baax waaw euh, thème moom lu am solo ndax li ko waral mooy code de la famille euh, dafay arsenal boo xam day day mbo ay dajale article yoo xam ne mi ngi waxtaane ci nit ki di tàmbalee ci bi muy doog a gën jamono ba ni mu fi jógee daanaka ndax état civil ak euh, miraas ak sëy lépp mu ngi ci biir kon dafa mel ne day tënk dunduk nit ki bi mu fi nekkee ba ni mu jógee loolu nag lu am solo la ñun ñi nga xamante ni ñun la loi boobu dal suñ kaw ñu xam moom mooy lan. moo taxoon tey ñu ko doon waxtaane code de fa famille bii fi nekk ak fa mu tàmbalee sëriñ si réticence yi ñu ci amoon maanaam xëy na ñoo xamante ne amoon nañ ci gàntal ndax niñ ko gisee dañoo gis ne dafa wuute lool en tout cas ci disposi disposition yu bëree bëri maanaam ci atte yi loi yu bëree bëri dafa wuute ak li lislaam digle ci maanaam diggante ni ko soxnaam ci miraas ak yeneen ak yeneen loolu nag ba am ñu gàntaloon ko loolu na xëy na adduna looy dox léeg-léeg danañ def révision am yu ñu ci yokk am yu ñu ci wàññi moo tax ñu tegaat débat bi ndax société buy jëm ci kanam buy dox bu ne dana xool mbooleem li koy atte mboolem li nga xamante ni moom lay séq ak ñi koy ñi koy jiite ak li ñuy séq ñoom individu benn par benn kon loolu bokk na ci mooy code de la mais dañuy dañuy nafaraat xoolaat code la famille fi mu jaar fi mu toll ak nag ëllëg ñun lan lañ ci séentu loolu mu lu am solo la yaakaar naa itam euh, xalaat yi fi génn moo xam ku demee ne soxna si nga xam ne sociologue lu muy soxna Fatou Sow saar wala juriste yi fi nekk ñëpp war nañ ko mën a dajale ci biir ñu xam dëgg-dëgg nit ñi ñi nga xamante ni ñoom la ñuy àttee te ñi ci ëpp di di jullit seen démb ak seen diine ak seen pas-pas wuute lool ak lenn ci àtte yi nekk ci article yi jar na xoolaat moo tax itam doonoon na ci baax lool euh, député yi ñu ñëw ci ndax ñooy représentant euh, représentant nit ñi ci assemblée nationale am na. yaakaar naa kenn ko fi nekk am na ñoo xam ne ay député la woon waaye na egg si ci ñoom ba ñu xam nit ñi nga xamante ni ñoom la ñu wax ci seen tur seeni bëgg-bëgg ak ni ñu bëgg ñu àttee leen ko ak ni ñu leen seen diine fonk feeñ na bu baax ci jataay bi kon jataay bu am solo la boo xamante ni yaakaar naa ne ku ko dégg da nga xam fi mu tollu xam itam sëñ Cheikh Abdou ne wax dëgg yàlla li mu def rëlub sëriñ la li ma ko tàmbalee woon ndax yitte nit ñi ak seen i nemmat ak seeni jàmbat day li koy ñor ba mu koy teg ci penc mi. waaw sëñ maam Cheikh Mbacke Khadim Awa président de l'AIS waaw. jërëjëf tey ñëw nañ ci euh, panel bi nga xam ne sëñ du Abdou Bali mi ngi koy def ngir waajal laylu xadr gi tey mu invité ay borom xam-xam yu mag yoo xam ne ñëwul jël thème bu am solo mooy code de la famille yoo xam ne depuis 1971 la ko Senghor. li moom mën naa wax ne moom la bëggoon a imposer Sénégalais yi moom leen bëggoon a waaye heureusement ñu amoon ay kilifa yu mag yoo xam ne mën na jàtt du waajuru suñu Cheikh Abdou Bali mi muy suñu Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak suñu Abdou Aziz Amin euh, saa ak Thierno Saïd Nourou Tall ak El Hadj Ibrahima Niass ñooñu allah tabarakallah jamono boobu ñu daje waxtaan seen biir gannaaw ba ñu xoolee document bi xam moom la leen état du Sénégal joxoon jamono à l'époque bu ñu xoole gis ne bari na ci ay poñ yoo xam ne dëppoowut ak diine dëppoowut ak lislaam ca lañ euh, formé woon seen conseil bu mag boobu ngay dégg conseil supérieur islamique au Sénégal toog càmbar waxtaan ko ba gis ne li leen état du Sénégal bëgg projet code de la famille bi d'accorduñ ci keroog ci lañ defe seen seen i leetar ak seen i bataaxal dellawaat ko état du Sénégal wax nañu boobu sax Abdou Diouf foo fi nekkoon premier ministre Abdou Diouf leen ne leen loi bi desu ko woote ci assemblée lu euh, dañ ko dañ cee dugal seen xalaat yi waaye xëy na nam ko waxee woon noonu donc ñu jékki-jékki 1972 ni comme ni ñu ko waxee ñu woote loi bi euh, assemblée adopté ko ñu def code de la famille bi nga xam moom la ñuy àtte biir Sénégal donc mu nekk loo xam ne euh, li ñu ci dégg rek mooy suñu kilifa diine yu njëkk yi la ñu waroon def nañ ko donc bindaat nañ seen i bataaxal kenn ku ne signé joxaat ko état du Sénégal ne war nañ leen code bi ngeen woote ñun ànduñu ci donc nag ñoom liñ man mooy naqarlu lii yant salaasan doo dox ci ci ci bu nit bu gisee lu ko benn ku dindi ci lam loxom bu ko mënul ci làmmiñ bu ko ci ci ci mu naqarlu ko donc ñoom lañ mënoon mooy seen kàddu naqarlu nañ ko foofu lañ mënoon yem état moo fi nekkoon te état yi képp ku leen xam-xam ne tubaab yi ñu leen samp donc nekkal leen fi donc lañ mënoon mooy naqarloon nañ ko wane ne code bi ngeen ñu bëgg a imposé d'accorduñ ci kon gàcce ngalaam suñu kilifa yooyu dañoo waroon def def nañ ko donc xeex bi di continuer ba jamono Abdou Diouf vraiment kilifa yi jugaat waaye xam nga rek jullit ñi ba quatre-vingt-quinze pour musulman bu fekkoon ne ñi nekk assemblée di ay député di ay musulman gëmoon nañ dëgg-dëgg seen diine kon jàpp naa ne li suñ sëriñ doon xeex dañ leen ci jàppale waaye amut xëy na culture occidentaux bi dugg na ci ñoom donc bañ kon ne ànd ak état bi ak politique bàyyi loolu mu jàll loolu tamit arrangé na état arrangé na tubaab yi nga xam ne ñoo fi samp état yi donc ba jamono yi Ablaye Wade dégg nga Ablaye Wade bi ñëwee sëriñ si defaat booloowaat nekkaat benn xeex bi continué waat ñu jugaat sëñ Abdou Amin ak ak ñi fi nekkoon ñëpp vraiment ba ci sëñ Mourtala Mbacke radiyallahu anhu bokkoon nañ ci ñi si nekk place sëñ sëñ Saliou pour bëgg mi fi nekkoon euh, code de la famille ñu ñu dindi ko ci assemblée assemblée nationale bi waaye defaraat ko tëggaat ko ba xam da dëppoo atte lislaam yi donc waaye gis nga la ci xew Abdoulaye Wade bañ tamit ka saalik donc kon xeex bu yàgg la xeex bu long la bu diir la boo xam ne ba tey moo waral ñu defaat forum bi. ngir ci code de la famille jàmbaraat ko jàngaraat ko ngir nan lañ mën a fex kon ne xeex bi duñ naagu ndax du ne rek mag ñi xeexoon nañ ko réussir uñ ñu topp seen ginnaaw xeex na réussir uñ kon ñu dañoo war a bàyyi déedéet dañoo war a takkuwaat moo tax kon sëñ Cheikh Abdou defaat forum bi ngir nan lañ mën a càmbaraate jàngaat code de la famille bi ba changement yi nga xam war nañ ko ci def ñu def ko ci ba nga xam ne alhamdulilah rabbil alamin li ñu bëgg mooy waxuñu ñu àttee charia buñ ko buñ bëggoon buñ sañoon moom la ñu def parce que ñu ci réew mi dañu fi àtte sariya wax dëgg yàlla waaye comme ñoom taxaw nañ dañu fi àtte sariya waaye nañ may nag wax dëgg yàlla ñun ñu bëgg a àtteewu suñu sariya suñu biir ñu àtteewu ko suñu biir te loolu pourtant euh, constitution bi voilà ba lu mel noonu nee na musulman yi képp koo xam ne bëgg nga àtteewu mën ngaa dem ci sa xaadima àtte la waaye ba yooyu yëpp léegi euh, ni ñu ko war a appliquer dëgg-dëgg appliquer ko waaye li gën a yitte la mooy code de la famille bi mbirum takk ak ak ni nga xam ne noonu lañ ko tegee ñoom dëpp wut ak ni ko lislaam tegee donc kon loolu moo war a forum bi tey ñëw ci euh, ci turu AIS e participer vraiment ngir bëgg daal ñu gën a jëlaat euh, xeex bi tey war ko suñu loxo fas yéene boole julli ñëpp nag ndax tey alhamdulilah rabbil alamin tey la mooy gën a am tey la gisa bi gën a gën a gën a jàppandi donc kon jàpp nañ ne buñ ci taxawee liggéey ci liggéey bu dëgër liñ bëgg yàlla suma subhaanahu man nañu ko may ba nga xam ne code de la famille bi la ci ñoom suñu Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bëggoon suñ mag ñi baax bëggoon ko ci tey ñooy seenu njaboot war nañ ko mën a porter ba am ci ndam waaw man la docteur xaari Bousso dëkk Touba waaw su ñu leen nuyu bu baax nii waa Mouride info bu baax bis bi am na solo lool biñ ñëwee fekk fi Serigne Abdou Mbacke mu def ben initiative bu am solo bo xamanteni dafa mel imtidad la manam lu commencé won bu yag la lu wajuram commencé won muy Serigne Cheikh gayne Fatma def ci lu am solo lo xam moko ko def ci histoire du Sénégal ci talif ab téré bo xamanteni day wax ci wàllu xaanunul usra muy code de la famille. donc mu lu nekk lu am solo tay bu ñewé kon ci livre bobu mu ñëw bëgg ko faram faccé jëfëndiko ko ànd ak mborom xam-xam yi ngir Sénégal man ci jukki ay jukki yu am solo yu mi jariñoo ci walu famem day nek lu am solo ndax loolu dafa nekkon recommandation islam bu l'islam digle won ba yàlla waxé ni qu anfusakum wa ahlikum naran yonente bi alayhi salam tamit fernel ko ci yu bari xayrakum xayrakum li ahlihi wa ana xayrakum li ahli kon mu nek lu am solo di bis bo xamanteni bis bu am njariñ la doliko nañ fi lu bax rawat na panelist yi fi nekkon docteur ndiogu sambu ak sëñ Cheikh nambak Abdou Wadoud ak mbollem professeur yi fi nekkoon yëpp ñu jëriñ ñom lu bare bare dolli ko waat ci xam-xam kon jàng nañ fi lu am solo di ñaan suñu borom tamit mu yag taxaw ñi def lu lu melni di ñaan yàlla doli ngërëm ak yermane ci suñu mam ju bax ci solo may mamadou na suxraa dolli ko tawféex bu baakha a baax ba fam nekk ak wajuram bu tedd wa bu ëllëgé lañ koy fay ñun tamit ñi dugg ci biir loola alhamdulilah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما نيجي لين دي نيو باخ تي تورو سيرن بي دي لين زيار بو باخ تي ويرو تاد بي دي نيان سون بروم لب لون تي ديف تي اي جامو يالله مو نانغول نيكو تي باركيب سيرن توبا sëñ bi nee na mi ngi am mbégte ci seen teewaay eh, di ci am mbégte bu baax ndax ku ne xam na ne xat na lool ku nekk dafa bàyyi ay yitt eh, te koor gi itam xat na lool ngeen ñëw ànd ak ñun ci wàccaayu bis bi kon sëñ bi bég na lool ndax ci tax ngeen koy def muy soxna May. Euh, loolu rek moo nekkoon yitteem euh, soxna si ab jàngalekat la woon ab yarkat la woon euh, bari na ñu génn ci keppaaram ñoo xam ne moo leen jàngal def ci ñoom yarub lislaam tey fan nag ay royukaay lañ fa kon def mel ni lii ngeen jataay bii ngeen ngeen ngeen bëgg-bëgg soxna si ak ci liggéeyal soxna si eh, ni ko sëñ Abdou Khadir waxe eh, wax dëgg yàlla xa jàpp naa ne boo amee suivi lislaam jépp war nañ cee mën a jariñu rawatina yoonu murit waaw kon eh, ni mu ko waxe rek sëriñ Tuubaa moom lislaam rek moo ko taxoon di ñëw diinun siwaa islaami yi te li tax li ma fi indi mooy yeesal ko te yaakaar naa euh, euh, sujet bi ñu doon traité tey euh, gis-gisu lislaam wane nañ ko ci waaw kon kon murit yëpp ngeen ko defal waaye jullit yëpp ngeen ko defal waaw sëñ bi daal moom bég na lool di xam ne fii moom seen kër la waaw Serigne Touba moom eh, njabootu lislaam yëpp la la la la wuufoon machaayix yi Jilaani wa Chazali njaboote woon nee na am na ngërëmul Cheikh Abdul Qadir Jeylaani am ngërëmul Cheikh Ahmad Tijaani am ngërëmul eh, eh, abul abul Xasan Achazali waaw ndax ku ci nekk ci ñoom Serigne Touba jëfandikoo na sa wérd am na jamono boo xam ne ku ci nekk ñoom jëfandikoo na sa waaw kon ni ko waxe fee rek lislaam gépp benn la turuq yi eh, ay ay ay ay gisin la ci lislaam rek waaye lislaam moom ni ko imam Mbay waxe lislaam benn la wax na ko fay ñëpp di ko dégg waaw kon ñu ngi leen di eh, jaajëfal bu baax eh, di ñaan jéego yii daal suñ boroom nangu ko te mu yàgg lool waaw te mu yàgg lool ndax xam-xam moom ku la gën a ku la jiitu rek Thank you.